merci à tout le monde salaamaaleykum euh, mbokki Sénégal salaamaaleykum askan bi nga xam ne actuellement ñi seen seen télévision Leral TV ak euh, Leral point net te ñu amaan mbégte ñëwaat fi nga xam ne moom mooy euh, seen émission Face Ak seen émission Face Ak nag dafa nekk émission bi nga xam ni dañ koy def ci fépp ci Sénégal di waxtaan li nga xam ne moom mooy Sénégal ak développement dinañ invité politicien bi invité ki nga xam ne moom mooy sportif bi invité aussi tamit homme religieux bi comme ni ñu koy defee saa su ne dañuy ñëw fekk nit ki fi nga xam ne moom mooy ci dëkkuwaayam ñu waxtaan ak moom waxtaan aussi tamit euh, comme ni ko defee waxtaan ci Sénégal waxtaan aussi tamit ci euh, commune bi nga xam ne moom lañ nekk moom mooy commune luga ak la région de luga te ñu am mbégte dalal euh, suñu xarit quoi qu'on puisse dire nekk nit nga xam ni je pense que ku ñuy wax ci wàllum développement au niveau de Louga kenn du ko présenté ti dino de pap Sarr monsieur Sarr ñu ngi lay nuyu. di la jaajëfee ci toogaay bi tey. Euh, di kontaan parce que c'est pas une première fois pour nous mais di am toujours mbégte saa su ne wax ak euh, waa Sénégal mais wax ak waa Louga. particulièrement parce que c'est c'est Louga notre terre de prédilection. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf comme ni koy waxee euh, ñu ñëw fi nga xam ne moom mooy sur Leral TV ak Leral point net. Mm-hmm. ñëw suñu émission Face ak mu nekk émission bi nga xam ne Sénégal yëpp ñoo koy seetaan adduna bi yëpp ñu koy seetaan. Euh, ñi waxtaanee aussi tamit tey ñu ko waxee Sénégal euh, mais nag balaa ñëw waxtaan ci balaa ñëw commencé waxtaan bi à chaque ñu koy defee euh, bien vrai que am na ñoo xam ni xam gis nañ jëmm gi mais am na ñoo xam ne xam nañ tur bi mais nit kooku noonu tey fokk ñu xam li nga xam ne moom mooy brève présentation rek ci nit nga xam ne moom moo doon moom la ñu invité tey suñu doon posé la question à savoir kan mooy Pape Sarr lan nga ñuy tontu. Pape doomu Njàmbur la. doomu Louga bu juddoo Dakar nag. de parents lougatois, eux-mêmes nés donc lougatois Persus, euh, Pape Oumar Sarr, euh, ndaw bu jàngi woon bu jàngi Sénégal la euh, jàng fi daara jàng fi école euh, dem ba université génn dem jàngi France dellu soit kooku mooy Pape Oumar Sarr tey day liggéey ci fànn yu bari sama njàng may na ma ma nekk consultant ci informatique mais ma nekk aussi consultant ci aménagement ak développement du territoire nekk consultant tamit ci développement durable voilà c'est ça à peu près mais mais li ma li nga xam ne moom laa jàng di ko jàngale tey ci daara yu mag yi di ko jàngale quand je peux mais di ci liggéey tamit comme consultant ba tax na tey depuis quelques mois maa ngi Sénégal dellu siwaat sama réew di liggéey mais di liggéey comme consultant pour l'agence nationale de l'aménagement du territoire au titre d'ingénieur en aménagement et développement du territoire voilà ci projet nag boo xam ni gouvernement Sénégal ak gouvernement Allemagne ñoo ko ŋànk mu tudd seen suuf ñu koy liggéey fi mu toll nii ñu nekk ci di bay waar ci Saalum diggante Kaffrine ak Kaolack voilà jërëjëf je pense que euh, jaar bi nekk na euh, jaar bu am solo. Mhm. Euh, comme ni ñu ko defee dañuy commencé ci li nga xam ne moom mooy actualité. Mhm. au niveau du Sénégal bien vrai que depuis lors ñu ngi doog a toog man ak yow. Mhm. gis nañ li Sénégalais yi nga xam ne depuis ay at ñu ngi koy ŋànk-ŋànki. di ko wax moom mooy ki nga xam ne moom mooy le président Macky sàll à chaque fois opposition bi dañ doon wax que ni duñ ko bàyyi mu def li nga xam ne moom mooy sa mu présenter sa troisième candidature. yàlla def mu génn. def li nga xam ne moom mooy génn wax ak sénégalais yi. bi wax ak euh, adduna bi ni leen moom euh, du présenté li nga xam ne du bokkul ci li nga xam ne moom mooy du def def présentation pour la sa troisième candidature mm-hmm. yan jàngat nga am ci loolu monsieur Sarr mais bokk naa ci Sénégal yi nga xam ne si dañ leen xërtaloon ci Macky Sall amul droit def troisième candidature mm-hmm. euh, parce que pour ñoom c'est un mandat de trop mm-hmm. euh, mais man bokkoon naa ci ñi comprendre ni euh, ni yëf yi tëdd mayoon na ko mu def deuxième quinquennat ni ni ni droit bi tëdd ci ñun ni ñu ko jàngatee ni ñu ko ni ñu ko comprendre. Euh, c'est vrai que ñun ba ñuy dégg yooyu di positionné wu ci deuxième quinquennat possible. Euh, xalaatuñ ci woon Macky Sall la personne. parce que nit au-delà dés engagements politiques dafa am dafa am pas-pasu boppam. dafa am kaddu. le président ne nous a pas suivi heureusement parce que euh, dafa jàpp ni kaddoom moo gën ci askan wi sàmm sa kàddu valeur la ci république du Sénégal. Mhm. mu bëggoon a wane ni moom nit kuy sàmm kàddool ma il et il dafa waxoon ñëpp ni moom bu eggee 2024 ci la mandaam di yam respecté na ko parce que bi ñuy commencé di dëgmal élection yi ñu jëm wax na ñëpp ba mu leer ne moom sàmm kàddoom da koy gënal possibilité bi mu am tey te yoon may ko mu nekkaat muy defaat beneen candidature voilà ba tax na euh, mbégte laa ci am satisfaction laa ci am gërëm président moo war sénégalais yépp parce que dil nañu jiixi jaaxa bu doon plané quelque même quelque part sur le fait que président warul wala war na nekkaat candidat euh, il nous a mis à l'aise et à temps bien que nit ñi topp nañ ko presque pendant cinq ans di ko laaj est-ce qu'il sera candidat ou est-ce qu'il ne sera pas candidat li xew tey nag ci lënt-lënt ba nga xam ne président nee na du candidat mm-hmm. mais xamuñu qui va ou non être candidat tax na ñu xam ni kon président waxoon na ba muy wax ni waruma mënumaa tontu ci ci loolu tey parce que lii xew nii rek daf ñuy war ni bu bu ci teeloon tontu doon na préjudiciable au Sénégal parce que kon heure bi pendant cinq ans les gens allaient être dans des dissensions autour de la candidature de kan moo war a nekk après Macky Sall candidat wu Benno Bokk Yaakaar te loolu mhm. dafa naa doon woon gëm ci démarche au Sénégal mhm. euh, tey nag le président a mis tout à l'aise mais en même temps indi na problème ci choix wu kan mooy eggale tey mhm. moom li mu commencé woon parce que nag président mi ngi dem waaye bàyyi na fi liggéey bàyyi na fi réalisation kan moo koy yeggale parce que un chemin a été ouvert c' un chemin pour le PSE et c' est un chemin pour l' émergence mais émergence dañ ko natt ci 2035 kan moo eggale loolu c' est une promesse collective portée par un homme qui nous dit dootuma nekk candidat donc loolu indi na lënt-lënt mais dans le même temps ci opposition bi tamit am na ay lënt-lënt parce que beaucoup de choses qui étaient prédestinées wala qui étaient destinées à dessein par des de l'opposition se sont révélées fausses parce que tey boo xoolee l'environnement politique bi lu bëri lu ñu yaakaaroon amul wala lu bëri lu ñu nattoon risque dina paase paase Sénégal daal mi ngi ci guddi gu bët sa tegul ñun ñëpp ci am kenn ku nekk war ngaa jël sa di am sa taxawaay voilà ci loolu noonu est-ce que tey euh, le moom du euh, def du def sa présentation euh, pour troisième nekk noonu la bett yow oui et non oui et non c'est-à-dire que mon souhait qu'il se présente lui c'était ça mon souhait je fais partie des gens qui disaient ça parce que xëy na euh, damaa jàppoon ni man bu weesoo Macky Sall sama bopp rek laa wóolu Sénégal man. Pape Oumar Sarr. damaa jàppoon ni bu weesoo Macky Sall instant boobu. ak li ma jot a gis sama bopp laa wóolu. te je ne suis pas prêt. à aller être candidat. je ne pas vraiment prêt à aller être candidat. xëy na moo tax quelque part ma doon souhaité mu nekk candidat. mais le fait qu'ils diise je respecte ma parole je n'ai jamais failli à ma parole. waxoon naa leen 2024 laa taxaw nous y sommes 2024 du ma nekk candidat euh, loolu tamit méngoo naag nit ki ko wax mhm. méngoo naag moom méngoo naag jëfam méngoo naag lim ñu tàmm digal donc voilà je c'est vraiment oui et non quoi. ok euh, ci biir loolu on a aussi tamit ki nga xam ne moom li nga xam ne mooy parti euh, APR benn Bokk Yaakaar. Mhm. depuis lors bi mbëri président Macky Sall waxee ba léegi du nekk euh, li nga xam ne moom mooy du présenté wu. gis na coow li commencé bari su ne coow moom mooy kenn ku ci nekk naan dafa bëgg a nekk. Euh, candidat 2024. Mmh. Euh, loolu noonu est-ce que tey euh, Macky su teeloon wax li nga xam ne moom mooy du ma bokk candidat coow lii nii nii du ko du ko du ko du ko résoudre. non su teeloon wax ni du ma nekk candidat Sénégal da doon nekk ci campagne permanente déjà ci biir Benno day am problème parce que nit ñi dootuñu am référent te nit ñi bu ñu amatul référent rek dañuy guerre ci seen biir. Mmh. kenn ku nekk ci ñoom de bëgg a nekk référent bi. te bu boobaa on va se retrouver avec une armée mexicaine boo xam ne si kenn xamul kuy chef ak kuy kuy Euh, loolu moom c'était pas bon au moins pour le camp favorable au président man nag wax dëgg yàlla j'étais plus proche du camp favorable au président okay. que de l'autre camp tey camp opposition même si je ne peux pas me définir comme un, un, un quelqu'un qui est là qui est un béni oui oui du, du pouvoir gis ngeen ko waa Louga xam nañ ko dem nañ élection locale ñun présenter suñu candidature al ko Benno Bokk Yaakaar amoon na nous avons pris nos responsabilités parce que nous pensions que affaire localité affaire territoire la et que quand il s'agit de prendre ses responsabilités sur le territoire nous ne pouvons pas ne pas prendre les nôtres euh, de la même façon bi ñu demee ci législative tamit on s'est dit que le territoire lougatois lui a besoin de de quelqu'un pour aller le représenter dans l'hémicycle et pour parler à son nom et donc ça redevient encore une histoire de territoire et nous avons pris nos responsabilités là aussi xaaruñu Benno Bokk nous avions là aussi pris nos responsabilités et nous sommes allés battre campagne. Mais quant il s'agit de chercher un nom un seul, pour diriger le Sénégal, foofu moom dañuy tey. foofu dañuy tey parce que après euh, ce n'est pas la personne c'est en plus un collectif capable avec lui de porter une candidature de mission parce que c'est de ça qu'il s'agit est-ce que tey gis nañ nit ki nga xam ne moom mooy war a porter candidature de mission boobu su fekkee ni il y un collectif pour dire oui et pour obéir bu fekkee ni euh, Macky moom jël na engagement wu accompagner kooku jusqu'au bu mooy yoon yi ñu tracé woon sillons yooyu duñ ko perte et que ces sillons là te ku mel ne man tey sama taxawaay mooy ku fi mënti jël responsabilité wu ni moom mooy diriger Benno Bokk Yaakaar parce que je suis plus favorable benn Benno Bokk Yaakaar qu'autre chose na nekk koo xam ne si il va marché sur ce sillon donc ñun suñu taxawaay mooy kuñ fi teg da nga marcher ci sillon yi kuñ fi teg dinañu wóor ni yow PSE du du du un rêve euh, ponctuel pour toi et que Macky Sall jóge fi du yóbbaale PSE da ngay kon na ñuy dox ci réalisation Macky Sall da kon na ñuy dox ci PNADT plan national d'aménagement et de développement des territoires da ngay taxaw ci ñuy dox ci PAVAR qui n'est pas encore très connu mais qui est un programme du président la République qui a tendance à valoriser les ressources et potentialités des territoires parce que ñun nag suñu jàng ak suñu gis-gisu développement parce que développement dañ koy jàng mooy ni le développement se fait à la base à partir des territoires te yooyu nga xam ni c'est des uchronies positives c'est pas de l'utopie c'est vraiment ay gént yoo xam ne si nit mun na cee dox egg ci yooyu bu fekkee ne ku bëgg jël réew mi wala ki ko nar a jox ci loolu lay dox ñu ànd ak moom dox ak dox ak moom euh, n'a pas prépa euh, maanaam préparé wul ne moom mooy sa candidature. Mhm. loolu euh, nekkoon na li nga xam ne foofu lañ doon xaar le Benno monsieur Sarr. mais je crois que depuis le début depuis que Benno am il n'y a jamais eu de charte réelle de fonctionnement de Benno. Okay. il n'y a jamais de charte même réelle de fonctionnement de APR tout simplement parce que APR parti bu doon defarul la far am président. jotuloon na egg au bout de son de cheminement mu am président mu comprendre ni moom kese parti bi du mën a dem parce que moom taxawagul donc il lui faut des alliés mu dem créer réceptacle bu ñu tuddee Benno Bokk Yaakaar mais on n'a jamais voulu réellement structurer Benno Bokk Yaakaar parce que yoon bi dafa gaaw te boo structurer indi ay frustration ñu bàyyi noonu tey ce qui se passe c'est que benn Bokk Yaakaar comme APR c'est des entités qui sont contraintes et forcées aujourd'hui de se prendre en charge de se mm-hmm. suñ ko deful ils vont perdre la main. Et s'ils perdent la main, ben c'est l'opposition qui va se mettre au pouvoir pour combien de temps, on ne sait pas. jàpp naa ne c'est quand même des politiques qui sont assez consciencieux, qui comprennent les enjeux et qui savent que dañoo taxaw ci célébé yoon. Mhm. il faut choisir d'aller à droite ou d'aller à gauche. aller à droite c'est poursuivre le travail qui a déjà été entamé. mais ajuster ko ba li ci yàqu woon dootu fi amati. parce que nag Macky Sall jaaraama. waaye terewul lu bëri nit ñu yàqal nañ ko ko. lu bëree bëri ci doxalin ak ci jikko nit ñi yàqal nañ ko ko mais terewul cap bi mu définiroon c'est un bon cap pour peu que quelqu'un aujourd'hui se prenne en main et essaie de marcher dessus. ñun suñ taxawaay tey mooy taxawaay nga président ci géntam mais nga président ci géntam mooy ànd ak nit ñi nga xam ne si favorable nañu à marché pour que li président xàlloon ci yoon ñu mën cee dox. bu ñu ko gisee topp ci. ci loolu noonu euh, gis nañ euh, Sénégal actuellement ñi ni muy doxalee euh, am na ay coow fi amoon ay ati ati ati coow loolu noonu moom mooy li nga xam ne moom mooy l'opposant mhm. Ousmane Sonko. mi mhm. nga xam ni actuellement nii mu ngi ci fi nga xam ne moom mooy prison. le mhm. moment bu ñuy wax nii aussi tamit gis nañ parti Pastef bi nga xam ni danoo génne benn communiqué nii dañ koo dissoudre est-ce que tey démocratie Sénégal est-ce que tey amul lu mu lu mu wàññeeku par rapport ak ak li nga xam ne nguur gi mi ngi koy doxalee ci li nga xam moom mooy opposition bi. mais je veux qu'on dissocie opposition ak Pastef. parce que quand je parle de l'opposition Pastef c'est l'opposition. Euh, en fait je si même si Pastef semble être le, le poids le plus lourd de l'opposition de manière globale. mais il faut qu'on dissocie opposition ak Pastef parce que moi j'ai j'ai connu ce pays-là maa ngi commencé am aw fan quand parce que ba nit boo jàpp boo passé juróom fukki at ah. da ngay fekk lu bari xam nga fekk naa Senghor. Mhm. fekk Abdou Diouf fekk Abdoulaye Wade. quand tu as vécu tout ça tey nga xool nguuru Macky Sall li fi xew en termes d'opposition tu te demandes dans quel pays on se trouve est-ce que c'est l'opposition digitale qui nous a conduit à li xew ci Sénégal est-ce que c'est le c'est le numérique qui à un moment donné a pris le dessus sur la vie de tous les jours on peut se poser la question mais ce qu'on a vécu réellement c'est une opposition dirigée et galvaudée par un parti qui s'appelle PASTEF et qui nous à des yoo xam ne musta xew Sénégal saagante reyante beddikonte waxante lu bon et au finish on finit à la case prison li moo xew ci réew mi les gens comme si il ne s'était rien passé et li xew nii ak Sonko c'est quelque chose de nouveau c'est c'est un peu Euh, xëy na la la la confirmation que le régime en place aujourd'hui est dirigé par Macky Sall est un régime violent qui a tendance à museler tout le monde. dem ba ñuy mais la démocratie au Sénégal n'a n'a jamais n'a jamais souffert d'un iota la démocratie au Sénégal c'est toujours bien comporté la preuve. élégance bi président waxee ni moom du demaat parce que kàddoom moo gën moo moo moo moo gën pour le peuple. Mm-hmm. et que le peuple est au-dessus de lui. tax na démocratie Sénégal. gardewaat ay ay ay lettres de noblesse tax na démocratie Sénégal vue du reste du monde kon ni garde ay lauriers am donc la démocratie au Sénégal n'a jamais souffert ce qui ce qui a souffert dans ce pays c'est c'est notre culture et notre éducation okay. nous avons nous avons un socle culturel qui ne nous permet pas de sortir de de de certains sentiers or nous sommes largement sortis des sentiers parce que fii dëkk bi dafa am lu ñuy wegante dafa am ay suñuy sëriñ am ay kuréel am ay organisation yoo xam ne si ñuy régir suñu contrat social. et ces organisations là sont tenues depuis toujours par diine ji diine ji à tout point de vue diine ji ci les murit diine ji ci les tijaan diine ji ci jàngu bi mais loolu socle éducationnel religieux la boo xam ne si moom mës a téye Sénégal mësuñoo génn ba am yii fi xew aujourd'hui ce qu'on a tendance à voir c'est des gens qui se mettent qui se dressent devant ces vestiges là qui nous ont servi de soubassement et qui ont tenu les foyers dans tout ce pays ba nga xam ne si dara musul déborder tey lépp a déborder dañuy saaga kër diine yi dañuy xas sa marabu yi dañ leen di tëkku mais dañ leen di sax violenté mais est-ce li nga xam ne moom mooy accès à l'information bi nu mu gaawee léegi avec euh, li nga wax léegi. oui mooy opposition bi nga tudd léegi monsieur Sarr est-ce loolu moom moo tax. mais c'est vrai yu bëri ci doon liggéey yu doon yu doon laaxatu di feeñ. mais xam nga avant internet di am. nit ku nekk dafa amoon place ci société bi le contrat social est tellement bien régenté dans ce pays là kenn ku nekk xam na ku war a wax léegi ñëpp a war a wax parce que léegi ku am smartphone rek mën ngaa wax mais yemoo ci wax mun ngaa wax mën ngaa filmer sa bopp yemoo ci loolu mun ngaa wax ñu lay dégg fu nekk ci àddina bi et ça au lieu d'être un avantage a été quelque part un péril pour ce pays parce que on ne nous a pas préparé à ça on ne nous koo xam ne si day xalaat dara xolam tàng mu denc ko parce que le contrat social est fait de sorte que bu génnee ci penc mi am na lu mënul wax devant n'importe ki mais boo nekkee yàgg sa smartphone kese ci biir néeg dangay tas àdduna da ngay tukkal àdduna parce que lu la neex ngay wax li daan tax ngay am looy ruus ak looy ragal ak looy wekk moo fi dul nekkati yow ak téléphone kese la ngay wax lu la neex donc tu ne mesures pas suffisamment au temps où tu le la conséquence de ce que li ñuy waxante nii tey fii lañ koy waxee Louga adduna bi yëpp ci am yoon les gens en Chine au Japon partout sur les continents mën nañ cee jot donc suñu amul ñun yaru am lu ñuy lu ñuy censurer suñu bopp ñun suñu bopp am lu ñuy ñemee wax ak lu ñuy ragal a wax on dit tout et n'importe quoi et demain ce sera diffusé partout mu indi jeexi jaaxa yu rëy mu indi ay conséquences yu yu immanquable ba pare non mesurable parce que wax bal la dafa grave soo ko waxee ba pare ñu mun koo yóbbu ci internet yi rek dootoo ko dabu mm-hmm. fa nga ko waxee woon xam nga ko mais fa muy teere ji xamoo ko mm-hmm. xamoo kan moo si jot donc loolu moo moo dem ba indi ci Sénégal loo xam ne si kenn mosu ko fee gis en terme de violence en terme d'insolence mm-hmm. en terme de vulgarité et en terme de politique nature parce que politique du woon lii politique jongante xalaat la or jongante xalaat jóge na fi bu yàgg léegi ce qui les veut mais léegi léegi léegi xatraayu moo fi nekk ak saagante xatraayu kese moo fi nekk ak saagante ak euh, xaxarante concours xaxar la sax pratiquement parce que kenn ku nekk da ngay jël sa micro rek saaga kii ki la jël tontu ki la jëlaat saaga ki la jël tontu on vit comme ça alors que loolu du suñu suñu suñu vrai contrat social ñun suñu contrat social ci socle de valeur la taxaw te socle de valeur boobu baax baax kese la amul lu bon da ngay am kersa am teggin xam nga yaatu yéene sa bopp li ngay yéene sa moroom li ngay yéene sa bopp yooyu yëpp ci suñuy socle de valeur la moom la ñu jàngal moom la ñu yare nous l'avons en commun les gens saabu mais internet dem na ba mel def dafay jëlee loolu et c'est ça peut-être ki explique lan moo xew tey ci suñu ci suñu penc loolu nag bu ñu ca tolloo dafa am ku am responsabilité moom ndax moom lañ fal moo tudd état. ok mooy. pas le président ci n'est que le chef de l'État l'État c'est nous tous ensemble kenn ku nekk delluwaat ci def introspection xool yow lu sa wàll ci état bi nga bokk lii sa wàll nga dox ko bu dee yow média nga yor nga xool li ngay wax xool li ngay jàllale xool li ngay diffuser bu dee yow wax parce que leader d'opinion nga nga xool li ngay wax askan wi parce que tu as la responsabilité éducationnelle de de ce peuple qui te suit ndax am na ñoo xam ne jànguñu mais xam nañ ne yow jàng nga donc jël au la lettre ce que tu leur dis et comme ils le prennent pour argent comptant balaa ngay wax war ngaa seet li ngay wax kenn ku nekk delluwaat ci sa bopp def sa propre introspection jël ses responsabilités moi je suis responsabiliste xam nga Sénégal dañuy wax socialiste wax libéral wax communiste wax yu kenn xamul man may jàng politique damaa commencé ci tekki tekki est le parti politique du Sénégal ça s'appelle parti de l'émergence citoyenne dañuy wax mouvement tekki rek mais ce que j'ai c'est nous notre propre doctrine dañ ne est-ce que ñun socialiste lañu réellement ça nous vient d'où ça vient de l'international socialiste est-ce que les libéraux les libéraux sont vraiment des libéraux au Sénégal est-ce que notre charte du Mandé est-ce que la charte du Kara Kouroukan Fouga nga xam ni moom moo ñu régir au temps lointain est-ce que loolu am na am na ci ni muy doxalee contrat social am na lu nuroog libéraliste amul lu nuroog libéral donc on a mis dos à dos social démocrate yooyu yëpp xamuñu ko on ne sait pas d'où ça vient on a dit lan mooy suñu doctrine ñun suñu doctrine mooy li ñu li ñu li nga xam ne si moo moo méngoog suñuy valeur sénégalais bu baax day jël responsabilité loolu mooy suñu valeur parce que ñun ñu ay nit diine lañ. responsabilité par rapport à. par rapport tout. ok nit kiy jël responsabilité mooy ki comprendre ni action bu mu def ci àddina. daa am conséquence. et qu'il doit l'assumer derrière. Mm-hmm. loolu mooy responsabiliste. donc nous nous nous nous définissons comme responsabilistes et nous disons que le fondement premier de chaque homme mooy xam ni yàlla du ko wàccee ci kaw suuf pour muy jël responsabilité pour que dans chaque chose dans notre cité mu am fu mu ci féete te mu fi mu ciy féete doon fi gën ci askan wi loolu mooy sa responsabilité première mais diine sax da la ko wax yàlla da la ci suuf pour nga assumer moom diggante moog yow mu wàccee téere alxuraan wax la lim dal ci sas sant ak lim lay tere nga war koo doxal c'est ça ta responsabilité première mais ça ta responsabilité elle doit s'exercer dans le partage de manière large c'est ça les fondements il faut partager le, le savoir il faut partager l'avoir mm-hmm. mais il faut partager aussi le pouvoir alors que nos sociétés aujourd'hui sont en difficulté parce qu'on a des problèmes pour partager le pouvoir mais tant que tu ne partages pas le pouvoir tu ne peux pas approfondir la démocratie loolu mooy suñu problème tant qu'on partage pas l'avoir kenn ku nekk bëgg aakimu li ñu la li jox mu nekk sa disposition pour askan wi ñun ne lii nga war a def yow nga bëgg a aakimoo quatre pour cent yi jox askan wi vingt pour cent mais du penc mi du dox mais bu fekkee ne da ngaa am xam wala nga jàng dara ba jàpp ni waroo ko partager ak wi mais ça ça ne sert pour ça que net ku nekk kuy dox ci Sénégal bu fekkee ni jël nga say responsabilité war ngaa mën a dox ci yooyu après nag mu am ay principe après nag mu am ay ay ay ay ay ay doxalin pour que responsabilisme boobu mën a jëriñ sa askan. ok voilà ok ok monsieur Sarr ci loolu noonu euh, dañuy ci la ñuy euh, ñëw ci li nga xam ne moom mooy yow vous aviez les possibilités bu rester li nga xam ne moom mooy. Euh, tugal mhm. toog tugal foofu noonu parce que yaa ngi foon ne jàngale ci yenn daara yu mag yi foofu mhm. ñu di gis la nga def sa nga def retour bi ngay def retour ñun ñu la ñu ngi la identifié mois bi nga xam ne moom mooy les élections locales mhm. élections yi nga xam ne amoon na bi nga ñëwee ñëw nekkoon ci les candidats ci li nga xam ne moom mooy ak bu je pense que buntu bi. Mm-hmm. Euh, nga nga nga présenté. ci local yi ak ak àndu nawle. àndu àndu àndu nawle waaw àndu nawle waaw. suqali suñu gox mooy suqali suñu gox moom nga mm-hmm. doon euh, foofu nga euh, représenté woon nekk ci li nga xam ne moom mooy département bi mën nañ ñëw ci li nga xam ne lan moo la andiwaat li nga xam ne moom mooy ñëw ni leen damay ñëw. Euh, dellusiwaat Sénégal ñëw Louga en même temps aussi tamit euh, lan moo tax moment bi nga xam ne nga yaa ngi laaj nga choisir li nga ne moom mooy le waaw deux raisons la première c'est que c'est man dañ ma tàggat ci école boo xam ne euh, jàng naa fa ba am bac papa joxewul dërëm yaay joxewul dërëm te loolu privilège la. ma def concours admis école militaire boo jàng prytanée militaire sa papa da la jox yére ñoom ñoo lay yor sixième ba terminal mais damaa jàpp ni loolu dañoo jël xaalis askan wi def ko ci man ok ba pare sas ma savoir pour mieux servir ni ma yow dangaa ngaa war a jëriñ sa askan may doxee loolu donc su ma jékki-jékkee jàng loolu ba jàng fii bañ ma préparé ma ba ma mën a dem jàng ci daar yu mag yi ma dem France jàng ba pare tubaab yi ni ma toogal ma toog rek fàtte Sénégal mooy mooy baadoola la mooy fayu ma naar bu xoromo mooy mooy fàttaliku ma sama askan ba mu may tettee moom di ma teral di ma di def lépp ci man te sama papa fekkewu ko donc je me suis dit que moi xuma ku amul bor man am naa bor donc man war naa dellu Sénégal. Ah, bor bi Sénégal nga ko amee ah oui lu ma xam Sénégal tax ma xam ko donc war naa dellu Sénégal fexe ba Sénégal jariñoo ko. ok su ma toogee jàngal ay doomu tubaab kese kese ba retraité ñëw fii amatuma njariñ may lekk sama retraite lan laa jariñ Sénégal dara pourtant Sénégal moo tax ma mën loolu loolu mooy mooy mooy fondement premier bi. Mhm. li ci topp mooy damaa xool ci lan laa mën a jariñ sama réew man France nee la. j'ai de l'expertise en aménagement et développement du territoire nekk ci métropole nantaise di liggéey ci loolu di xoolal tubaab yi seen gox goxaan lu tax muy bañ a dox seen gox goxaan lu tax muy bañ a waaw gox goxaan bu bu bu xaw a tële ma jéem a ñëw nekk ci consultant di la wax ni boo defee nii boo tegee yi jéego boo jaaree fii boo defee lii ok waaw man Louga laa dëkk sëñ bi mhm. léegi loolu bu ma ko jéemul ci Louga te mu wóor ma ni Louga doxul mooy war naa waa Louga mhm. pourquoi département parce que France ba ma nekkoon dama faa nekk ci benn organisation bu tudd Pays de Loire coopération internationale boo xam ne moo yore coopération wu région ba ma nekk. ñooñu di lëkkaloo daal le cadre de la coopération décentralisée ak yeneen collectivité territoriales par exemple en Afrique ma xool ni Sénégal amatul conseil régional mais am na conseil départemental. ma ne léegi pour ma jariñ Louga ci conseil départemental laa ko mëne parce que fee ma nekkoon conseil régional la te ñu waxtaan naa ak ñoom lu tax ba ñu gëm loo mu ni boo delloo sa réew bu fekkee ne da bëgg defar foofu ñun danañ la jàppale pour nga mën a defar sa conseil départemental ma xayma ñoom li ñuy génnee ci xaalis di ko jëmalee ci dëkk yu mel ni Afrique ah dëkk yu mel ne Sénégal du moins ma xayma ko gis ne xaalis bu baree baree bare la te loolu jëli ko jafewul que xam naa fi ñuy jaar ba jël ko maa ngi ci liggéey ma ne kon naa dem fexe ba Louga jariñoo ko mais bu ma demee Louga bëgg leen a wax nan la ñuy def pour ñu mën a jariñoo ñool il faut ma tamit ma expliquer leen ni man loolu laa jàng ni ñuy defaree gox ni ñuy defaree surtout département parce que moo gën a important ni ñuy defaree commune kese mais fii dañ ko soofantal gars yi bari doole yi mairie ba rek la ñuy xëccoo pourquoi parce que jàpp nañ ni mairie ba moo ëpp njariñ alors que mairie ba néeg la ci kër gi. kër gi moom mooy département bi kër gi la. soo bëggee kër gi jag même boo buggee néeg bi jag war ngaa comprendre ne il faut kër gi jag non su kër gi jagul ah. parce que jagal kër compréhension collective la ça doit être il faut que nit ñi xam ni néeg yëpp a war a doxandoo parce que kër gi yemul ci néeg yi kese dafa am couloir yi am douche bi am waañ wi am yi nga xam ne si kër gi yëpp a ko bokk làmp kuur bi du làmp biir néeg bi mais làmp kuur bi ñëpp ay jaar ci làmp cour bi pour dem ci mbedd mi kon nag même làmp mbedd mi ñëpp ko bokk yooyu dafa war a dox bu ku nekk jàppee ni moom néegam kese moo ko intéressé loolu du dox ma ni kon naa dem c'est du travail affaire faire il faut mu wan waa Louga ne dañoo def erreur ndax département du lu ñuy soofantal waaye nag xaalisam bariwul ci niñ tënkee ni ñuy joxe xaalis ci communes yi par rapport au département loolu tëggin la boo xam ne si dañ ko war a réajuster mais comme fii la toll instant yi soo naree dem rek ci département il faut nga xam fu ñuy jëlee xaalis damaa jëlee le département mais collectivité territoriale bu mu mënti doon muy mairie muy département kenn amul droit yëkkati loo xam ne da koy jël te xamul fu muy jëlee xaalis moom lu bokkul ak li nga xam ne si état moom lay joxe. parce que état lim yor rek lay joxe. je rappelle que nous sommes au Sénégal dans un pays pauvre. peut-être même très endetté en tout cas nous faisons partie des pays les moins avancés Sénégal dox jéego yu mag nag pour génn ci loolu puisque nous parlons de programme <laughs> Sénégal émergent ça veut dire que bëgg nañoo génn ci mbal mais en attendant nous sommes un donc état bi li mu lay jox li mu yor rek la mën a jox pays pauvre mënul am lu bëri donc yow balaa nga naan maay jiite département bi gaa yi dañ koy xëccoo pour politique kese pour am carte de visite bi ñu ni kii mooy président mais loo ci gis day indi yeneen défaillance parce que non seulement foofu bëriwul xaalis pour yow en termes de de de rémunération uh-huh. du sax rémunération bu tax muy wax genre indemnité la uh-huh. xaalis ba bëriwul mais Sénégal ci boppam amul xaalis bu bari bu mu la jox pour say pour li nga bëgg a def donc yow il faut nga xam foo jëlee xaalis xam nooy def ba xaalis bi jëriñ sa askan. ba pare nga am métier xam nooy def yow ba mën di xalaat di jaay say xalaat mu lay indil looy looy looy dundee. parce que parce que nekk président conseil départemental du métier. Euh, ah non du métier lañ ñoom dañoo ñoom ñoom ñoom politique bi lañ def métier. waaw arrivé. ci politique bi mooy nga jox la benn conseil départemental nga nekk président généralement du ñu am ñoom argumentation ils sont juste portés par benn coalition benn dynamique électorale boo xam si bennoo nga bokk bennoo bokk yaakaar moo la moo la far nit ñi dañ ci topp rek di dem du ñu réfléchir loo ci gis dañuy gaañ seen bopp dañuy lor seen bopp tout le temps parce que dañuy fal koo xam ne si bu xasee ba toog lu muy lijjantee boppam moo moo moo ko intéressé bu xoolee ni li ñu ko war a jox ndàmpaay gi boo foorul day dellu ci ko joxoon ni ko li ma jox ndàmpaay gi foorul du ma ci mën a dund ni ma ci war a dunde te gars yi yëpp jox nga leen loo xam ne si ñoom danañ ci am 2 millions léegi nu ñuy def kooku daal day obligé ne ah comme fii 500000 rek nga am xaar ma seet feneen foo xam ne si bu ma la fa tëmbalee da fa mën a am benn benn million genn wàll nga boole ko ñoom ñaar nga am 2 millions comme gars moo tax loolooy indi ñi leen ñuy nekk président conseil départemental ba pare ñu yóbbu leen haut conseil wala ñu yóbbu leen conseil économique social et environnemental pour ñu mottali. des fois sax ils sont ils sont ñu nekk député. waaw daf ñu def leen ci liste nationale bi pour ñu nekk député ils n'ont rien à proposer. mais on a fait un député. yooyu aberration yooyu moo tax askan wi bis bu yeewoo maa ngi ñaan yàlla mu gaaw xam loolu. parce que dañoo nekk ci acte trois ci dëkk boo xam ne si territoire yëpp dañuy concours Louga war naa fexe ba ba du jël ndaare pour Louga bañ a jël ndaare il faut mu tànn ñoo xam ne si xam nañ li ñuy liggéey ñu dénk leen ko parce que nag je prends toujours l'exemple du chauffeur. bis boo bëggee dem Dakar yàqamti jël oto bu gaaw jox ko chauffeur bu amul permis xamul code de la route. yaa ngi dem rek waaye xamoo ci ci ban guuta nga nga dugg. Mm-hmm. ci loolu noonu dañ lay dégg à chaque fois ngay ngay wax euh, coopération Euh, amoon nañ euh, jotoon nañ ci ay affaires yi nga xam ne moom mooy dëkk bi mënta développer sans la coopération. absolument coopération moom mooy yor dëkk. Mm-hmm. mais dañuy gis euh, au niveau de Louga absence de coopération da cee am. Mm-hmm. te aussi yow mi nga xam ne yàlla def na nga nekkoon nekk ci diaspora bi est-ce que vous avez une fois pensé à au-delà li nga xam ne moom mooy ci fonds yooyu nga doon wax. Mm-hmm. maanaam des choses yi nga xam ne tey dana mën a dugg si Louga pour que Louga mën a am benn développement bi nga xam ne ñun moom la ñuy xaar. waaw c'est que on n'a on n'a pas les coups de franche ba pare fii gars yi du yaatal on a de bons rapports depuis quelque temps ak Djibi Samb par exemple on discute il commence à comprendre que c'est bien de nga tàllal say loxo parce que yow kese mënoo dem mais eggul ci def mettre du contenu pour que ñu toog ñun ñëpp ñu waxtaan ñu wax leen ay piste ñu ne boo defee nii dugg fii laaj lii bind lii département bi dana am nangam duñ ko def parce que dañoo jàpp ni buñ ñëwee laajte dañuy suufee te boo ñëwee wax leen dañuy bañ parce que dañuy jàpp ni boo bu waaw duñ comprendre ni yow yéen yéen ñaar yéen a bokk Louga yii mooy problème yi donc li ñuy mën rek mooy di wax ak fexe ba askan wi ñu teel a njëkk ci moom commencé waxtaan ak moom pour expliquer ko ne su ngeen bëggee li may wax mu mun a nekk fexe leen ba man ma am signature bi waa ji am. am signature bi waa ji ah, waaw bu ñu ma taboon tey président conseil départemental ma mun a wane li may wax parce que affaire bi du wax rek. xel mu comprendre li may wax jàng développement dina comprendre li may wax dina xam ni c'est vrai mhm. mais am na ñoo xam ne si dañu naan ah waa day wax rek léegi waa ji day wax rek waaj ji da ngeen ko essayé mu xool te du ma bàyyi dinaa continuer di laaj <laughs> ba bañ may jox ma essayé parce que jàpp naa ne tànk maa ngi nooyi su ma mënee def benn affaire boo xam ne si dina ñëw Sénégal jàppale waa Sénégal rawatina Louga gii nga xam ne si bu ma sañoon su ma see su ma dee suba tool peru la lañ lañ may lañ may ziyaare mhm. mais war naa jëm dara pour Louga absence de coopération euh, euh, ci li conseil. c'est absence de compétence. Euh, absence de compétence. oui quand vous parlez d'absence de compétence ci maanaam njiit yi ñoom ñoo am li nga xam ne moom moo des ci ñoom. mais moo des ci ñoom c'est-à-dire ils pas où aller. nit ki boo ko nee demal marché jëndal ma ñam bi dafa war a xam fu marché ba nekk. su ko xamul du ca dem. est que vous avez essayé ngeen leen rapprocher. on c'est difficile c'est difficile on les on on se de temps en temps il m'est arrivé depuis quelque temps maa ngi Sénégal comme consultant di liggéeyal ANAT. Mm-hmm. tant que je le peux damay dugg ci ay liggéey yuy xaw ci territoire bi yenn saa yi mu am ay réflexion wala ay CRD yoo xam ne nit ñi dañ may invité parce que xam nañ ni mu teen mën naa indi ay xalaat wala mu indi ay gis-gis donc j'y vais j'essaie de donner ce que je peux donner donc ci yooyu benn yoon u ñaar yoon damay tase ak yi parce que généralement c'est le département qui préside xam nga suñu mel noonu parce que day yaatu day dépasser cadre commune de Louga day nekk ci 17 communes yi nekk Louga donc c'est le département qui porte ça et on se retrouve avec le gouverneur ou avec le préfet ou tu et, on, on, dans tout le département. su booba c'est souvent le préfet d'ailleurs qui est, qui est éligible puisque c'est lui qui s'occupe du département mais bu ñu tasee ci yu mel noonu dinañu waxante waa saa waay ah ñu leen bokk bu day am naa gis-gis ci lii ak lii ak lii xam nga ñun am nañ ay conseillers malgré tout. gañewuñu département bi mais am nañ conseillers yu fa nekk Matar Dieng dañ lii ngeen wax ma mën nañ lii ak chaque fois qu'il va là buy dem danañ ko yeb ñun balaa muy dem danañ toog liggéey ci li li ko foore yóbbu ñun ñëpp ñu joxe suñu xalaat bien que ñett yooyu lañ am te ñetti sax gars yi fexe nañ ba dem nangul suñuy ñaar benn lañ fa dese bu bu wóor mooy Matar Dia. maanaam nangu suñuy ñaar. nangu suñuy ñaar maanaam ñetti ñetti conseil lañ amoon. politiquement ki fi nekk président dem na seeti euh, xale bu jigéen bañ àndaloo ni ko ni ko ñi nga nekkal dañ lay tardel politiquement maa baax ci yow parce que man danaa la wutal liggéey kooku gëm ko dem ma nga fa. ci suñu tur waaye mbir yi lay liggéey keneen ku góor ki def laa même chose waa ji da koo digal ñu ko dañuy ànd ci président dina la defal lii dina la defal la mu woo ma ni ma vraiment man dama tamit damaa bëgg avancer je vais aller voir le président effectivement dem na ci président mais il faisait partie de de d'un groupe de cent personnes defe naa qui sont allés voir le président donc voilà donc jari jariñu ko dara audience ba nga xam ne si ñëpp ci waa Louga yëg nañ ko mm-hmm. xam nga ñu naxale yu baax yooyu daf may naqari ba nga xam ne si euh, ça ne nous grandit man on a fait des erreurs de casting sur ces personnes mais nag dox dajale woon ñu ngi doon door a daje. Mhm. c'est vrai que on a commencé il dañoo yàgg ci àll bi léegi ñu ngi commencé xam nit ñi di xam ne ki ñuy àndal ko xam ne si bu fi desee moom boo fi desee yow kese moom dina dina toog des ak yow. Mhm. Mhm. ci loolu noonu monsieur Sarr on va parler ñu ngi woon ci euh, développement tey gis nañ euh, Louga tolluwaay bi nga xam ne moom moo fi nekk. Euh, tey gis nañ jeunesse la jeunesse lougatoise bien vrai que ñu ci bëri ñi ngi bëgg liggéey mais malheureusement Euh, lu toll nag ville de Louga amul li nga xam ne moom mooy usines yi nga xam ne jeunes yi mën nañu fee xëy mm. liggéey moo fi nekk Jakarta moo fi nekk leneen li booy kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg a dem gis ngeen fan yi li nga xam ne moom mooy booy yi nga xam ne actuellement ñi ngi jël euh, gaal gi fépp la ci Sénégal euh, Louga euh, suñu li ñuy gis moom mooy ñaari usines ñoom ñoo fi nekk te ay mort silen mort silencieuse lan je parle la Sonacos wax aussi tamit SPIA tey yaakaar nga ni tey ban les nos élus locaux yan matuwaay lañ mën a am pour que tey jeunes yi am ci lu ñu jàpp maa ngi liggéey ci programme bu tudd Pavar programme d'appui à la valorisation des ressources et potentialités de territoires lu ko tax a jóg mooy fexe ba booy bàyyi barça ak barsax te xëy di xëy di am ci luñ jàpp parce que lu bëri lu fi xew ci xeex yeeg yàq yeeg toj yi jot la am jot am na yoo xam ne si bu doon buy xew bu bu waree xew bu fekkee ñëpp liggéey gars yi duñ ko tal dañ leen koy nettali rek te booy bu ñu nekkul ci mbedd mi di taxawal rek duñ yàq kenn duñ yàq duñu violent duñu duñu saaga kenn duñ jote kenn mais loolu vision la gént la da nga nit ki boo jiitee collectivité territoriale da nga am gént gént googu ci nga dox jëm ci mu indil la nga teg ay jumtuwaay ay infrastructures yu mën a tax ba xale yi di liggéey mais c'est des choses qu'on doit penser parce que nag lu ci bëri tey sañ-sañ la yoo xam ne si état bi da koo jël dénk ko ñu nekk ci collectivité territoriale ils ont des compétences transférées c'est parce que n'assument pas déjà suffisamment et complètement les neuf qu'on les moo tax heure bii nekk ñu ci quatorze parce que heure bii waroon na fekk ñu nekk ci deuxième phase acte trois donc ñoom ñu am quatorze compétences transférées mm. mais neuf yu njëkk yi rek déjà pour ñu comprendre ko bu matal ko problème la donc boo leen doolee da nga leen di sëf amul njëriñ mm-hmm. mais tey dans les collectivités nit ñi war nañoo ubbeeku comprendre ne c'est pas seulement jiite collectivités yi mais les tout la population toute ensemble mm-hmm. il faut qu'on ñu explique nit ñi su baykat yi ak sàmmkat yi ak euh, ñiy bàyyi tool ñu ne enfin ñiy def yeneen yeneen activités yi ñi nga xam ci dañuy créer mhm. dañuy entreprendre ñoom ñëpp buñ comprendre développement territoire bi ci ñoom lay jaar xëy na dinañ commencé di teg ay jéego pour que les choses marchent dégg ñu ne Sénégal dafa am dafa ñàkk soble mhm. nous sommes les premiers producteurs de soble dans ce dans ce pays là ça vient de Potou mhm. mais pourquoi Potou di ñàkk soble c'est parce que gént territorial amul waxuma la gént national bi gént territorial mooy mooy ñi nga xam ne si xam nañ ni territoire bi ñun ñoo ko ngànk te que soble potu bi bokk na ci suñu ressource yiy développé Louga war nañu toog ak gars yi bay soble yëpp ñu réfléchir si nan la ñuy def ba déjà ñu am autosuffisance ci soble fii ci Louga mais ñu mën di garantir autosuffisance dans le Sénégal am ci politique de production mais ñu bañ a yem ci dañuy bay soble rek mais ñu xalaat nan la def ba soble bi bu ñu ko bayee ba pare entre juillet et décembre nga xam ne soble du fi ñor ñu mën ko conserver il faut donc que ñu mën a am loo xam ne si day séché soble bi ba mu egg ci séchage bi mu war a egg à maturité pour que nga mën ko denc 6 mois. après ñu mën a fexe ba loolu ñu mën a am fu ñu ko stocké dans des endroits de stockage yoo xam ne ils ont été prévus pour ça avec les bonnes températures du lu ñu inventé tout tout mais loolu ki jiite collectivité bi moo war a initier ay ay waxtaanukaay. yu tax ñëpp waxtaan ñu xam ne njëriñu ñëpp la ñu waxtaan ci def ko mais chaque territoire am na lu muy ñorle chaque territoire war naa fexe ba li mu war a li muy ñorle mu mu mun mu mun a ne carte au niveau national muy jëriñoo loolu damaa jëlale département bi mais boo nee région de Louga Sénégal ku fi lekk yàpp ñun ñoo la ko war a jox daara is nous ah ku fi naan meew ñoo la ko war a jox ñun ñoo waroon di produire fromage ak ak yaourt ci biir Sénégal ñoo ko Louga la waroon jóge donc made in Louga daa war a nag daa war a dox xam nu ñu ko tuddee mais doxul pourquoi parce que gént gi amu fi le marché de fo au foirail de de de de Daara là mhm. il, il sert le Sénégal sans valeur ajoutée mhm. parce que lu bëri kenn xalaatu ko àllu Louga baa ngi ni yàmbala benn booy bayul benn booy deful ferme benn booy élevé wul volaille benn booy euh, xalaatul ne il faut emblaver sur beaucoup dectare et le faire de manière intensive pour que mu mun li fay ñoree.

où il y a le plus fort contingent de de candidats te des c'est des c'est des grands dem fu mel ni Njawen Jaw nga xam ni sama xol la nekk ñun la kër ñett nit dee nañ ci ñett xale yu góor ñoo xam ne seen ndey ak seen i bàyyi ñoom lañ yaakaaroon pour s'en sortir xam nga yooyu dafa metti mi ngi wéy di am Louga alors que à Louga on a des gens réfléchis qui qui qui qui ont été à bonne école Louga bëri na cadre mais on n'avance pas qu'est-ce qui ralentit l'avancement de Louga. amul gént amul géntkat ñi ñi jiite war a wommat yoon wi. Mhm. amuñu gént gu ñu mënee joxe yoon. Mhm. ñu ko sax ce qu'ils font c'est s'entretenir et entretenir le fait que ñoom dañuy gérer collectivité ne collectivité bi di dund di dem donc fii ceux qui font le travail c'est les secrétaires généraux. ñi nga xam ne état bi da na a booleeg maire bi wala président conseil départemental bi pour que ñoom techniquement li. ñu war a def à minima pour que ñu ne conseil bi fonctionné na ba at mi jeex ñoom ñu mën ko assumer assurer ko bu dee déwénee ñu recommencer waat mais prospective bi ñu war a def pour que développement di am ñooñu du seen affaire ñoom du ñoom lañ fal donc gént gi du ci ñoom la war a duggee ci ki ñu fal la war a jógee mais ki ñu fal bu mënul xam bu mënul am gént boo ko falee tamit du la yóbbu fenn ok moom war a gént jox gars yi exécuté ah oui moo war a am xalaat ni président moom toogee am xalaat ni Pavard ne acte trois émergence pour mu am il faut que développement yi di commencer ci territoire bi chaque territoire am na lu mu baaxoo ñun dañoo waroon delluwaat ci Louga di di di di ramener yi fi amoon te amatu fi dañoo war a continuer di am ndugóor di am new di am sump di am tu vois yooyu yëpp ñu koy valoriser parce que day sax suñu suñu suñu dëkk yi suñu suuf nangu na ko mhm. au lieu de ça dañuy dañuy tabax rek takk jabar rek tabax rek lañu lañ fi nekk mhm. étalement urbain baa ngi dem Louga léegi mu jéggi dem ba jege ji Ndar mhm. on construit on épouse des femmes mais on ne pense pas à nan ñuy def ba ba liggéey mën a am. surtout. c' est un gros problème. et quand on parce que yaa ngi ko dañ dañuy dégg à chaque fois say waxtaan. Hmm? nga ciy wax ndox. suñ la waxee Louga am na ci yenn quartier yi nga xam ne euh, yenn quartier yi nga xam ne ci biir Louga lañ nekk. Hmm. nga xam ni Euh, Lac de Guiers daf ñu romb lu nga quartier mënuñoo am ndox je cite les Médina Médina Médina Salaam. Mhm. yenn ci quartier ñoo xam ne pour ñu naan mhm. dañuy jukki teen monsieur monsieur Sarr. loolu dama yàgg wax xam moi je suis un de l'eau man su may wax ci affaire ndox damay da xam ni kii passion la ci moom. Mhm. j'adore parler de l'eau mais mais li am fii Louga c'est une aberration. même si les gens de rectifier depuis quelque temps les gens commencent à au périmètre pour que ñëpp am ndox c'est vrai que l'État a un programme fort pour que nit ñëpp egg ci di jot eau potable. Mm-hmm. mais mais damaa bëgg di fàttali tout le temps ni Louga moom mooy moom mooy jox Sénégal ndox mooy abreuver Sénégal Louga. Mm-hmm. mais Louga buy abreuver Sénégal moom moo war a njëkk a mandé mm-hmm. ba pare war nañoo góorgóorlu ba li ñuy wax ci contenu local waxoon naa ko fii ne nañ fal suñuy député ñoom ñu dem assemblée nationale parce que le contenu local dit que fu am ressource buy génn ci suuf foofa dañuy préserver. fa ressource bi am askanoo dañ ko jariñoo comme askanoo dañ ko jariñoo war nañ leen dàmp ñu def benn loi boo xam ne si ca lay génn foofu ci koom dañ ciy jox askan woowu d'abord ñoo ci lañ ñii ci des ci Sénégal est que ñun waa Louga ñoo ëppale ci ndox mi ndox mi waa ma mëtaluñ sax ma ngay dem Dakar te Lac de Guiers lay jóge donc c'est vrai qu'il y a des solutions gaa ngi jéem a def ay ay ay wut ay pexe pour que suñu dëkk dëkkaan yëpp di am ay château d'eau wala am ay forage wala ñu am ay affaire c' est vrai que c' est de bonnes solutions c' est vrai que le plus important mooy ñi dañu am ndox rek mais ndox yi bu mu nekk ci loo xam ne si da nga koy am ak coono na nekk ndox yoo xam ne da ngay ubbi robinet mu xel gaa ngi ci liggéey nag jaaraama xëy na plan Sénégal émergent mais Louga moom waroon na dëkk yëpp waroon nañoo souffrir de ba mu des Louga parce que Lac de Guiers quand même kër Momar Sarr la nekk ça ça vraiment c'est mon cri de cœur de toujours te nag waxuma la Louga mais Sénégal sax war ñoo manqué ndox dëkk bu am fulla rek ci ndox nga koy xamee dëkk bu la bu la gën a mën a résoudre problème buy tax ba nit ñi di mën a jot ci ndox di am assainissement bu baax ñooñ ñoo la ëpp fulla parce que affaire bi affaire fulla kese la. fulla par rapport ak ci ah fulla par rapport parce que lu ñu xalaat la mm-hmm. bu ñu nee fii day inondé. mooy mooy nit ñi xalaatuñu ñu fay dëkk lu ci ëpp. Mm-hmm. soo defee soo defee ni ñu koy waxee boo projeté ay image diachronique mooy mooy nga xool. li xewoon 1970 nga am image foofu en 1970 jékki-jékki nga indi image foofu en 2023 da nga gis ne diggante 1970 ak 2023 nit ñi dëkk nañ fu leen neex. ci foo xam ne si ndox fa newoon. ana dexu meew. doo ko xam mais paa xam nañ <laughs> boo génnee fii euh, nu station bi tudd. DSK nu station bi tudd. Euh, SK euh, maanaam kii nu e e bi fii boo weesoo EDK tuuti rek foofu dexu meew la foofu. kër yi nekk zone boobu yëpp normalement. ci am ñu ko foofu foofu dañ fa gars yi dañ fa dem di féey. ok comme lu amul géej. waaw ah. mbaa nga dem ba Pout. booy fa lañ daan booy da daan dox ba sonn pour dem foofu pour dem plonger. Mm-hmm. gaa yi kër lañ fa def ay kër lañ fa def. olof pourtant day wax day léebu loo xam ne nit ñi dañ koy fàtte ndox du bàyyi yoonam mosoo ko dégg. Ah, ndox du mës a bàyyi yoonam. yàlla bindee noonu affaire yi xam nga lu tax. parce que adduna bi moo taxawee noo xam ne si. morphologie suuf si la daa am yu féete kaw ak yu féete suuf te ndox day walangaan bu bu bu waddee laal suuf day topp ay pente di walangaan donc toujours ci yoon ba mu daan jaar lay jaar yoon ba mu daan jaar boo ko obstrué xam nga ñaar lay def soit mu dëj mu nuy déjjët la nga fa teg tegee ko ne leen moom kon na yoonam su ko mënul déjjëti tout de mu yàq ci li mu man ba pare bifurqué indi ay yoon yoo xam ne si du yoonam normal comme du yoonam normal lam fay fekk du normal da ko yàq ñaari kër la fay fekk wala leneen lii kese la donc nit dañoo war a xalaat réfléchir pourquoi ndox di toj fenn parce que foofu xur la centre foofu moo gën a suufi côté yi bu nekkee xur la kay mooy ndox mi bu ñëwee dafay toog gars yi dem dëkk fa mbaa ñu def fa tali te duñ def surélevation duñ ko waajal léegi bu ndox mi taxawee ci xur yow nga xam ne fii xur la te nga ni dëkk bi ci doit yaa war yow lañ dénk cité bi daa war a dox même si l'assainissement aujourd'hui n'est pas une compétence transférée puisque ci cinq yi ñu waroon dolli la ok ci cinq yi. ci cinq yi ñu waroon dolli mais jotaguñ koo dolli kon ba léegi c'est partagé un peu entre la collectivité et l'État. Mm-hmm. ok mais ndox bu wala ngaa nee ba fenn mu taxaw foofu rek lay yem taxaw mooy mooy exutoire am amatul da ngaa war a góorgóorlu ba mu dem fa exutoire ba nekk. donc foofu war nañoo wut solution mais doo xaar chaque année rek nga ñëw di di pomper di dem. c'est ce qui se passe léegi dañuy répéter li nga xam ne moom mooy les surtout mais loolu tamit ñàkk géntu ñi ñi ñuy dénk la tout politique bi moo ko yàq. dañuy jël ku xamul dara ci ndox ñu ñëw dénk ko ndox ku xamul dara ci assainissement ñu dénk la assainissement jox la milliards yu bari ni la toppatoo nga def loo mën rek. ok euh, monsieur Sarr euh, parlons euh, un mm-hmm. la création de yeesal taxawaay ak aussi tamit lan moo ko tax a jóg. parce que gis nañ depuis loolu yaa ngi ci def liggéey bi nga xam ni liggéey bu doy waar liggéey bu am solo sur le plan national et international. waaw yeesal taxawaay moom mooy sama parti. mooy mooy li nga xam ne si loolu man ak samay xarit ñoo ko taxawal. yow la quoi waaw. Mhm. plateforme éco de des responsabilistes actifs wax naa leen léegi ni la responsabiliste la damaa nekkoon tekki nekk fa président des cadres. àddina mhm. dox ba ma am woro ak sama waa parti. Mhm. comme man entendement bi ma am ci parti Sénégal mooy ki jiite parti bi moo ko moom. boo neexatul ak moom da ngay dem. ok ma ne kon nañ dem ñeneen ñi ma àndaloon gëm ni dañoo war a dem. ñoom it nekk responsabiliste ñun nañ créé suñ parti responsabiliste loolu indi PERA PERA nag dañ cee toftal yeesal taxawaay yeesal taxawaay tey maa ngi nuyu yeesal taxawaayu Louga yëpp mhm. yu Sénégal yëpp baax nañu waaye bu Louga moom gënal parce que bu Louga laa jiite <laughs> waaye yu Sénégal ah. yeesal taxawaayu Louga moom gàcce ngaalaama ñoom vraiment c'est une équipe qui a été constituée il y ci local yi mais ay borom pas-pas yoo xam si bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñ ñoom ñëpp ñi ngi may dégg xëy xam naa ne maa ngi leen di gërëm fu gërëm yam fu amul app parce que nag ñoom ñoo ma dëgëral tey même bu ma demee dakaar di wax ak waaye yeesal taxawaay golf damay doser parce que damay mën a wane yeesal taxawaay Louga seen pas-pas ak seen taxawaay mhm. pour ñoom ñu góor parce que man jàpp naa ne waa Louga ñoom ñi ngi góorgóorlu maximal mhm. mais yeesal taxawaay moom laay demee Sénégal mhm. yeesal taxawaay mooy sama apport man ci li ma bëgg servir Sénégal suba buñ ma bu ma taxawoon pour nekk président yeesal taxawaay laay demee teraa yeesal taxawaay mooy suñu moomeel. mooy li nga xam ne jàpp nañ buñ ko wanee ci wàllu developpement parce que politique de développement rek ñun lañ xam. buñ ko wanee ci wàllu développement wanee ko ci ni ñuy tax tabaxee développement ni ñuy demee ci émergence ni ñuy def ba jeunes yi parce que tey Yeesal Taxawaay jeune ubbi na jeunes yi fa nekk dama leen leen prêcher par l'exemple yéen bu ngeen ànd ak man ñaari at te yéen soppeekuwu leen mooy mun leen a soppi kenn on par l'exemple on leur montrer yoon am na boo bëggee liggéey. en fonction ñaari possibilité rek moom nga nga jàng ci li nga bëgg ah mbaa nga dem ñu tàggat la ci ci li gën ci yow ci li ci li mën a nekk dans les deux cas loolu mooy sa yoonu liggéey il faut que tu tu, tu montres parce que chemin bi ngay wane mooy doon chemin de développement mhm. lan mooy nekk seen taxawaay ci li xam ne mooy euh, élection 2024 yi parce que euh, ci Sénégal loolu la yàlla na yàlla dogal benn bokk yaakaar am candidat bu consensuel ma courage boo xam ne si waa Benno Bokk Yaakaar yëpp mànkoo nañ d' ni yoon wi ñu xàll ci réalisation ak développement pour Sénégal mën a émergent ñooñu ñëpp ànd nañ ci ni kooku mën na koo jiite bu boobaa maa ngi ci gannaaw suñ fi indee xini mini di nga dégg Pape Sarr day candidat président bu ñu fi indee benn problème rek ma génn man def na ma defoon parce que ba may dem local gars dañ ma doon reer ndax deux mois ci desoon waaye xam nga yoo xam nga ne dem naa élection locale. ba ñuy dem législative c'est pareil. on à très peu de jour de la clôture de listes mais dem nañ élection législative yóbbu suñuy candidat euh, Makhtar Dieng ak Thiara Sarr. ñi leen ma leen di nuy bu baax di leen gërëm parce que ay ay ay jàmbaari Louga lañ. Mhm. ay jàmbaari Louga te waa Louga dinañ xam ne def nañu erreur ci bañ leen a fale. mais lii tamit ci présidentielle lañ jëm fi mu ne nii au moment mentor Macky Sall laa yaakaaroon dematul. Mhm. et il bien fait de ne pas y et s'il choisit son candidat. un candidat. bëgg naa mu garantir ñun ni candidat boobu day eggale moom li mu xa li mu commencé ñu ñun dañoo bëgg continuer ay réalisation dañoo bëgg réalisation yi nag bañ a des Dakar ñëw luga parce que Louga mënul bu ñuy lim industrie à Louga ñu ni la SPIA. kese ak Sonacos. Sonacos mi ngi impacté waa na ba léegi gaa yëpp dee. SPA mi ngi impacté waa non waa Louga gépp. c'est que waa waa Ndaam ñoo ci gën a ñoo ci gën fësle parce que ñoom ñoo gën a jege ngelaw li ci ñoom la jëm. Mm-hmm. mais waa Louga yëpp la ñuy rey. Mm-hmm. c'est-à-dire que les gens ne font pas suffisamment mais bu ñu defoon ay études sur les maladies qui tuent les Lougatois. Mm-hmm. di nga gis ni ñu bëree bëri SPA ak usine gerte ñoo leen di rey. ñun ñaa ngi ni tep pour yoon fa normal ñu nag xam naa ne dans 40 station bi ne fii mooy rey ñëpp parce que études yi wax nañ ni ku dëkk station essence 40 ans da ngay dee bi ngeen dugg sama kër ci station service ngeen romb. Euh, gis nañ la euh, lu yàggul boobu yaa ngi doon yaa ngi doon teg mouvement xeex lu lu delleeg sa kër benn station MK lan mooy problème mais problème bi mooy station service dafa am ay risque liggéey bu am risque lañ tuddee établissement classé. maanaam établissement classé mooy loo xam ne boo ko buggee doxal. il faut nga am autorisation yu dëgër. parce que dafay impacter nit ñi nga dëkk ñi ñi ñi jege fi nga koy def tey boo jekki-jekki woon rek nii damaa bëgg a defar fumier te ay ndéef laa koy defaree kër gi jënd naa ko waaye ndéef képp laa ciy def ñi nga dëkkal ñëpp dootuñu nooy donc da ngaa war a am autorisation bii c'est plus grave parce que dafa am ay risque yu réel sur la vie des gens autour émanation yi am ci station yi te doo ko gis da nga koy noyyi rek gasoil beeg essence beeg leneen étude yu wóor ci Europe wane na ni ku dëkk ak moom 40 ans ngay dee te cancer moo lay rey ñun de xam nga on est un peu amorti nee naa la passé nañ juróom fukki at mais doom yi ñoom dañoo am droit dund plus de 40 ans ñoom it. cancer. waaye mieux que ça ñii ba ñuy tabax seen station daaleel sama miiru kër gi moo tax ma xam ni ñoom station lañ koy bëgg a xam nga loolu mooy kon yëgaluñ ko kenn ci koñ bi ma woo ki ma jàkkaar lool woo sama gauche woo sama droite woo ñëpp ni ne ndax yëg ngeen ni station lañ fi def ñu ni ma te booba jour bi affaire bi daanu c'était un dimanche mercredi la waa ji commencé war a commencé station bi. war a commencé àllarba. waaw il a été retardé deux ans parce que pendant deux ans je lui ai mené un combat ferme. Mhm. waaye sama doole bariwul. Mhm. booy combat ci Sénégal da wut avocat. da koy fay. Mhm. xanaa nga am avocat bu boo xam ne si dangaa ngaa siiw ñëpp xam ne moom ci boobu mu bëgg cee siiwaale mu ñëw di la defal gratuit waaye man tollaguma foofu donc avocat bi dama koy fay mais ñoom ñoom ëpp doole. ba pare mel na ni ñi fi représenté nguur ñoom lañ àndal. ci naka. mais ci naka alerté naa leen ni leen jàng naa décret du 3 juin 2013 bii wax ci station essence. Mm-hmm. décret bi nee na station essence pour ñu def ko. Mm-hmm. il faut nga def ko foo xam ni façade bi. Mm-hmm. le sur la route principal daa war a ëpp 50 mètres. façade bi maanaam. tey route principale bi boo jàppee ni tali bële la tali bii dem garage Koki station bi foofu daa war a am cinquante mètres man leen dak moom amul foofu cinquante mètres vingt deux quarante la fa am ma ne kon bii sax moo gën a gudd tuuti kon naa nañ leen may ñoom ñu wër ñu wër ci bii ci bii amuñu vingt amuñu trente mètres mais comme kër gi fii ay vingt sur trente la moo suñu kër a tolloo ah. comme kër gi daa xaw a nekk en billet ñoom ñu profité ci billet boobu tuuti am un peu plus d' espace passé nañ tuuti ñoom six cent mais mënuñu am cinquante mètres de façade alinéa bi dafa ni la façade sur la route principale doit être supérieure à cinquante mètres français bu clair la c'est une phrase simple la façade sur la route principale doit être supérieure à cinquante mètres ils ont vingt deux mètres quarante mais def nañ essence romb nga station wala te ñu ngi jaay dem naa ak ñoom ba cour suprême cour suprême ni leen nañ tëj tëj station bi te buñ ko tëjul bis bu yàlla sàkk buñ fi jaay essence buñ fi jaay essence danañ fay un dañoo bari doole dem wuti ay avocat yu xarañ te comme ñoom pour nga attaquer leen décret bi leen jox autorisation ngay attaquer mooy tey je suis en guerre contre l' du Sénégal. ok boo xoolee li ñu libellé affaire bi sax da ngay bind Pape Oumar Sarr contre état du Sénégal xam nga lu rëy la te pourtant maa ngi liggéeyal état bi. waaye décret bi préfecture validé pour jox leen autorisation laay attaqué parce que normal ndax décret boobu warul jox autorisation essence jaay essence koo xam ne si façade am matul cinquante alors que dañ ko ni supérieur à cinquante mètres moom mu am vingt deux loolu mooy sama combat damaa jàpp ne Sénégal dese na yoon lu ñu bëri bëri doo rek lu ñu bëri bëri xaalis yàlla moo ni ku ànd ak dëgg ma ànd ak yow man jàpp naa dëgg laa àndal te maa ngi dox macha allah donc tôt ou tard bi dana fi jóg oh, macha allah euh, loolu aussi tamit nekk combat je pense que a nekk combat Pape Omar Sarr kese waroon nekk euh, combat euh, de tout Lougatoire absolument Lougatoire bi nga xam ne yow yaa ngi yëngu ci li nga xam ne moom mooy développement aussi tamit dëgg rek war nga bokk ci combat boobu noonu mm. monsieur saar li ñu joxoon ci li nga xam ne moom mooy temps jeex na xam-xam génn na émission bi neex na suñu la bàyyi woon tey ci li ngay tàggatoo euh, ci émission bi parce on on devait amaat yeneen temps yeneen heure waaw parce que li ñu waroon wax bari na. Mm. mais gis nga Babacar mu may mbëkk mbëkk yu la lan mooy nekk li nga. xam mais gërëm gërëm gërëm leeral bu baax a baax parce que leeral ci àddina dafa baax <laughs> na lamp leer waaye nag yat kàddu yi leer. Euh, c'est la première fois ma am opportunité wax ak leeral. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di ñaan yàlla liggéey bi ngeen def yàlla def ci barke. Mm-hmm. di ñaan yàlla ñi fi ñëw yëpp. ànd ak yow ci liggéey bi yàlla defal leen tawféex ak tay siir jàppal leen ci ñoom li ñu bëgg yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko euh, di kontaan rek ci tase ak chaque fois ah. parce que yow da ngay booster euh, tu vas au fond des donc ah. naturellement koy wax ak yow du yëg sax temps bi passé man yëgu ma ni def nañ fi 30 minutes. ba ba ba waaw tu vois yëgu ma ah. yëgu ma 30 minutes sax ba yëg une donc ça veut dire que émission bi neexoon na. Mm-hmm. j'espère que liñ fi wax dana jëriñ. et nit ñi dinañ xoolaat seen bopp réfléchir et que li ñu li ñu li ñu amal solo rek mooy lépp lu ñu fi wax rek mu doon loo xam ne si kàddu yu njëriñ lay doon yàlla na yàlla may ñu loolu te def dégg ak topp ci ñi nga xam ne ñoom ñooy destinataire privilégié wu li ñuy wax fii quoi. ok jërëjëf di la jaajëfal. comme ni nga ko eh, waxee rek sa euh, fait un plaisir grand plaisir aussi may jàkkaarloo ak yow parce que euh, suñ jàkkaarloo ak yow rek xam-xam mooy génn. Euh, njariñu Louga aussi tamit njariñu Sénégal moom moo ci gën lu ñu ci wax yëpp di souhaiter aussi tamit bonne chance pour yeesal taxawaay aussi tamit euh, par rapport ak li nga xam ne am euh, perspective yi nga xam ne am ngeen ko mhm. ci li nga xam ne moom mooy li jëkk ni nekk suñu kanam parce que li nga ko wax rek dëkk bi mënuñu koo doxal sans xam-xam dëkk bi mënuñu koo doxal sans gént mhm. quoi qu'on puisse ci bëri ci li nga xam ne moom moo ne ñoo fi nekk am na lu ci bëri loo xam ne parti politique lay doon politique moom moo leen fi tax moom moo tax euh, nit ñi duñ ci mën a gis seen bopp. Mhm. di la jaajëfal di jaajëfal aussi tamit euh, suñu téléspectateur leeral TV yëpp di jaajëfal aussi tamit suñu mbokk internet yi nga xam ne dañu doon dañu doon suivre sur leeral point net. Euh, merci aussi à toute l' équipe de leeral TV Louga di jël kàddu gi di ko jox suñu directeur mooy suñu directeur quoi Babacar Diop et toute l' équipe preneur son aussi tamit sa grand maa ngi lay jaajëfal. suñu taximan bi aussi tamit tout le monde gars yi nga xam ne euh, ñi ngi doon seetaan euh, di wax aussi on se donne rendez-vous incha allah ba beneen yoon ak euh, beneen invité jërë ngeen jëf